Sure une euh, émission li nga xamné que moo truc du matinal donc mi ngi non la track à trois entre section de recherche dik ak euh, ñen ñi nga xam ne itam jamono ji ñu ngi nekk si tourisme li nga xamné que moo Pastef boral japp jàpp ne loolu waral ñu daal li nga xamné que moo justement dissoute euh, bobu di nga xamné que moo parti par rapport ak événement yi nga xam ne itam jaar na fi daal di succédé wu bokk na lu jëm ci histoire des cocktails molotov des forces occultes mais aussi des commandos de Pastef ba ci bus yaraax bi nga xam ne itam nañ ko récemment par rapport alors nous euh, avons di le bataille li euh, plateau bi par rapport à euh, li que nous lu jëm avons ki que nous avons dit que Pastef dorénavant saisir li nous cour par rapport à avocat exactement récemment manucon Juan Branco Maître Clédor et compagnie c'est que li avons que que peut-être pour euh, euh, euh, CEDEAO pour li nga xamné que exiger la libération waaye tam détention bi nga xamné tam japp jàpp tek teg nañ ko ci kaw Ousmane Sonko bokk na itam lu jëm si la restitution de ces biens et tant d'autres ma ni kon nag ñoom leen daal di décider à la dernière minute par rapport ak walu wunu mel jëm ci nga xamné que modi parti bobu di Pastef donc japp leen itam pour le moment li nga xamné que modi bobu de parti mi ngi entrer li nga xamné que modi peut-être cassé wu parce que dissolution bi wàcc na acté nañ euh, par décret mais quand même malgré cela euh, li moi nous euh, ñu daal di leen li nga libère Ousmane Sonko waaye pour mu daal di war a mën a bokk si 2024 car ni kon démb ñoom Juan Branco maître Cyril Keldor ak maître Cyril Bathily et tant d'autres ak Bassi Bam Cissé c'est neen lu de li nga Modi exigence jëm si ki nga xam modi le président Macky Sall pour CEDEAO daal di weñ li nga l'homme alors ban commentaire ngay def numéro oui mais c'est normal c'est des avocats avocats c'est un client la parce que nous avons dit ils sont dans un combat soit eux ils gagnent ou bien soit les autres gagnent parce que nous là ko tuddee euh, avocat euh, tu défends un client euh, quitte à ce que nga tous les voies yoo xamante ne ñoom la lay permettre pour nga def ko. Hmm. ñoom lu def aujourd'hui les maîtres Siré que que vous avez cité et l'être maître euh, Demba Bathily mais c'est normal. Hmm. c'est des avocats yoo xamante ne dafa am seen client bu ñuy xeexal. Hmm. Ousmane mu tudd Ousmane Sonko. donc euh, euh, aujourd'hui ñoom dañoo jàpp ni que Ousmane Sonko ba léegi mën naa. mën naa bi te aussi mën naa comme parce que chaque euh, jour ñu là quoi man dama gisul lu lu lu lu lu Ousmane Sonko wax hmm. les dossiers bah, parce que doo ma ne ci ay dossiers ñu ko jàppee parce que ben dossier n'est arrivé à terme hmm. aucun dossier de Ousmane Sonko n'est arrivé à terme. Ismaïla Faye ah, waxul loolu. non non amul non non la Ous Ous comment comment de Ismaïla euh, euh, comment dirais-je. Madior Fall Ismaïla Madior Fall lui, il, en tant que politicien. Hmm. Il est de APR, c'est normal. Il est de Benno Bokuyakar, c'est normal. ñom buñu len leen tay Ousmane Sonko du bok ci élection moo ma japp ni il agit comme un membre de Benno Bokk Yaakaar wala un membre de Benno Bokk ça aussi man euh, je l'accepte hein. hmm. mën na ko ko ko comment euh, comprendre parce que c'est un politicien c'est un politique un politicien mais bu faites dafay wax droit en tant que ministre de la justice mais aucun ministre de la justice même bu def première année en droit qu'est ce nga vous ko nommé comme ministre de la justice d'autant taxaw la Ousmane Sonko l'affaire de Ousmane Sonko Adissar est définitivement arrivée à terme ma vous la que fekkee nit la première année université en droit mu jàll la deuxième année nga génnee ko université ne ko ma la ministre de la justice du taxaw sénégalais l'affaire de Ousmane Sonko Adji est arrivée à terme parce que bu fekkee ci contumace la cobager. la du taxaw ne sénégalais l'affaire là a été jugée définitive parce que à euh, a fait un appel Ndeye Khady a fait un appel c'est dans le même dossier et aussi Ousmane Sonko d'un ses avocats ñu ils ont un an un non acquiescement L'affaire nga la est déjà bouclée parce que nombre de délais bi ngeen may Ousmane Sonko pour mu ñëw constitué wala ki ni moo alors que ñom ñu ne la ñom ils ont dañoo bind un non acquiescement donc génnee un nano acquiescement bobu bu ñu bind ça date de de de quelle date. Hmm. c'est sénégalais hmm. voilà fi ko bëgg ñu nax la dañ lay nax. le ministre n'a qu'à publier le non-acquiescement que les avocats bu Ousmane Sonko bataxal bobu bu mu bind un non-acquiescement ça date de quel jour. et de quel mois pour gëm pour mu mën a convaincre sénégalais que délai bi dafa weesu. Mm. na génnee acquiescement bobu bu féké acquiescement bi amul nañu né wa PASTEF acquiescement bi amul ñom ñu génnee sen bataxal bobu man j'invite les deux camps ñu génnee acquiescement bobu bu féké amna nañ ko teg ci réseaux sociaux sénégalais xol la date le mois pour pour mu mën pour ñu mën a gëm le ministre ni que euh, délai bi dafa weesu. Mm. fofu la ñi waxé mais man waxuma sax ci acquiescement bobu mais quelqu'un qui a fait un appel sur le même dossier sur le même dossier là bas mais le dossier est définitif c'est parce que yo si vous avez dit, que le dossier Ousmane Sonko Adissar est définitif donc yo tu ignores les appels de Ndeye Khady et de Adji Yo tu ignores ces appels là. donc alors que nous sommes droit à euh, permettre ñu def appel au niveau de la Cour suprême. Yo faut appeler. appel yooyu le dossier est définitif. Hmm. Moi moom Ismaïla Major Fall bu waxee en tant que membre de APR wala en tant que membre de Benno Bokk man je le comprends C'est normal parce que c'est un politique. Hmm. maintenant bu fekkee génné na casquette bobu mu une casquette ministre de la justice man jàpp ni que un ministre de la justice mën na taxaw gëmuloo sénégalais ni que le dossier Ousmane Sonko Adissar est arrivé à terme. Hmm. man loolu la gëm alors donc mi ngi chers spectateurs ni kon li ensuite Bokuna, na ñu li nga justement reprendre procès Sonko ak ki nga avons dit. bu ay acte euh, non acquiescement Sonko daal di koy déposé waaye itam nous aussi li appel mais amul droit déposé appel si peine mais si am droit quand même mhm donc ça n'a rien à voir ak peine bi nga xam ni itam daan Ousmane Sonko te ci peine bi moko ko xañ mu si di dem ci 2024 là aussi est-ce qu'on am contradictoire non mais attends mais si attends amul contradictoire tu sais pourquoi même bu fekkee Adji Sarr ci ci ci ci bi la la la la def appel mais nan la xolé xoolee bobu boobu. bu hmm. fekkee meun nañ ko yok wala meun na ko mën nañ ko wàññi. légui dang ma bëgg ne dañuy jël décision verbale ni ne ko léegi téléphone léegi yokkal nañu la 200 millions ci foofu loolu lañ koy defee lan la ñuy def ba yokk ko kii bi wala ñu wàññi ko. wala ñu ñu maintenir ko lan la ñuy def. tëggaat ah. mais loolu il faut pas. te mën a bénéfice ci côté Ousmane Sonko dans ce cas Ousmane Sonko day teewi day day day ñëw ba. Sonko du ñëw mais instant bu ko bëgg du ñëw. non dina ñëw parce que il est un max dina ñëw mu ngi ci loxo yoon loxo yoon moo koy jëlee prison boobu yóbbu ko directement par force euh, foofu ci ci ci. ah bon donc procès amaatoon Sonko dina wax assisté par force te yaa ngi koy xaar fii 2024 ñu procès amaat. parce que dans ce cas du moom mooy joxe avalam tu sais pourquoi loxo moo ko teg yoon c' est le parquet mooy ordonné andi leen ma kooku xanaa xamoo droit laa lay wax. Hmm. Ousmane Sonko mu ngi ci loxo yoon bu fekkee procès bi dañ koy tëggaat du c' est pas à lui de décider c'est le parquet moment le juge andi un mandat parce que mu ci loxo yoon ñom andi ko ki à mu taxaw ba paré deloko wala bu dañ koy libérer libérer ko donc vous ne pouvez pas me dire que bu ñu procès bi parce que fait un appel wala du manipulation la mënul kan la Sonko du si il est en liberté. Hmm. mu mën a daw wala mu mën a def lu leen wala mu togg këram comme këram bu mu toog jee euh, Ziguinchor ñoom ñu taxaw dem bañ a dem jëli ko dans ce mën nga ma ne Sonko nee ne du ñëw mais Sonko mu ngi ci loxo yoon nga ne ma Sonko nee ne du ñëw nan la mun ñëwee dina ñëw parce que ju juge bi moo koy andi <laughs> mais loolu la. ok alors euh, mais quand même. donc fan appel le dossier définitif. voilà l'interrogation que beaucoup euh, euh, de comment juristes de juristes des juristes même même le barreau de France de Paris you dégg la décision du ministre il y avait des interrogations je crois même il y a un Sénégalais là, il est au, barreau de France, j'ai oublié son, son, son, nom là, il, fait souvent des, des, interventions sur Sénéweb, hmm. j'ai oublié son nom, euh, euh, euh, voilà. Donc lui, tout ça, ils ont fustigé la décision des ministres. Ils, ne parlent tout sauf droit. Alors, ils donc, ne parlent tout sauf le droit. professeur Amaton, Ousmane Sonko, il est contraint d'y assister exactement. Mais bien sûr. Juge, moi que yone bien nous commanda pour nous assister mais la GIGN voilà la la BIP nous au tribunal. belle GIGN non <laughs> non juste exemple. il sera escorté par ou bien le service financier euh, euh, euh, pénitentiaire ou bien ñu ordonné à ce que comment les membres de Bara Sankaré ñu dem ñu dem ñu c'est normal parce que nous mais man ce qui intrigue les sénégalais fan la ñu tegalee appel yoo xamante ñooñu def nañ ko ba Ousmane Sonko son non acquiescement ba ñu naan le euh, comment la décision est définitive. alors euh, c'est clair donc mi ngi noonu par rapport ak kaw ki nga xam ne Ousmane Sonko en tout cas les avocats euh, de la défense d'Ousmane Sonko li ñu réclamé bokk nañu daal reprendre at procès Sonko ak ki nga xam ne moo di Adji Sarr te Arfan nee Sonko il est contraint d'y assister parce que si mi ngi si loxo yoon ak vu que vu que on euh, continue max alors euh, mais dañuy daal di wéyal F24 alors 24 on départ de taille Amnafa, fa euh, le radeau a quitté li nga que maudit F24 exactement alors aujourd'hui on na tout le temps que ni F24 impacte am ci population de fraude et a trop trop trop trop. alors tey naka la daal gisee le radeau bi nga xam ni itam quitté F24 mu nekkoon benn commande bu am solo au sein cette plateforme mais tout simplement tu sais la rado c'est pas des des mouvements politiques eh, F24 c'est hmm. pas tout le monde n'est pas politique dedans il y a des mouvements ou bien des groupements des des, associations apolitiques hmm. ils ont intégré le, F24 tu sais pourquoi pour lutter contre l'injustice parce que boo rado nous, nañu lutter contre l'injustice démocratie si on a ñom lu melni ñom euh, rado ñu melni africa Africa John Center ñu melni ni euh, euh, comment dirais les droits de l'homme comment dirais et aussi comment dirais la société civile. Mm. ñu mel ni ñooñu ma japp ni que c'est des politiciens même si il y a voilà aujourd'hui on dit pas tout maintenant. ñoñu rado bu démé ba quitter parce que gisu gisu gisuñu sen bop mm. parce que dañoo japp ni que peut-être lu len engagé won ci F24 dañoo dem nous gisatuñu euh, euh, euh, seen bopp ci lolo parce que nee naa la fi F24 comment il peut être un mouvement bu mel noonu bu ëpp sax doole des adhérents par rapport le M24 le M23 boo xamante ne xewoon na fi en 2011 2012 yow F24 aujourd'hui nga am ay ay membres yoo xamante ne ñu la mën a permettre nga sa combat tranquillement tu n'arrives même pas à à à à franchir un obstacle. Hmm. Moi maanaam musu mënuñu. Ah, obstacle non mais il y a des obstacles boy boy boy lutter boy lutter contre une injustice. Hmm. il faut ce qu'il y ait de euh, mais quand même. c'est clair day am euh, euh, ay obstacles yoo te dañuy taxaw sa kanam. mais yow mais quel genre d'obstacle obstacle mais quel quel genre d'obstacle ils sont confrontés. il y a des inter y a des interdictions de manifestation. mais faites que interdiction de manifestation chaque fois répétitif mais il ya a andi stratégie boo xamante da nga contrecarrer interdiction de manifester bob hmm. interdiction de rassemblement ça la koy parce que F24 n'a pas appelé à manifester a appelé à eux des rassemblements. un rassemblement euh, euh, comment dirais-je euh, pacifique. Hmm. mooy manam dañuy dem ci place de de la nation c'est une roadshow moy manam sen une sen tribune taxaw communiquer. ba pare tas ku nekk ñibbi. Hmm. maintenant bu fekkee loolu mënoo ko wooyee manifestation c'est manifestation c'est un peu péjoratif. Hmm. que par par exemple képp ku woote manifestation da ngay jàpp ni kuy taal ay pneu kuy sandi ay xeer mais ñoom F24 woote wu ñu loolu. ñoom rassemblement la ñu woote pacifique mooy maanaam taxaw véhiculer wala seen naxar. ñi euh, euh, euh, ñi déglu lam à l'international maintenant bu fekkee yooyu mënoo ko am loo xamante c'est pacifique mënoo hmm, ko am. chaque jour il déposé a déjà sa réponse mais a toujours ngay nek fi fayda parce que ñak fayda koy affaire ba xam nga. réponse mais que dañu bëgg a confirmer au à. mais loolu waral ay ñu melni ay radio ñu parce que tant que est à F24 nous mëna def lu luñu bëgg combat tranquillement parce que F24 xamul fu muy taxaw c'est des c'est des c'est des comédiens xama taxaw na fi taxaw fi ne la c'est des man ay comédiens la len jappé c'est comme si ça l'histoire donne raison au président de la République moo euh, F24 troisième mandat mo len tax mo len tax a créé F24 mais aujourd'hui troisième mandat amul il n'y a aucune manifestation, aucun mouvement de F24. C'est clair, merci beaucoup. C'est des, comédiens. Alors, c'est clair. Alors, chers nous l'avons dit, si nous avons dit que euh, nous hein, euh, vous avez compris. Euh,